boroom xam-xam di imam di gëstukat tey jii nag ñu ñëw fii ci ndigalul sëriñ Sidi Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad ngir waajtaayu màggalu Cheikh Abdoul Ahad di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru Sowal eh, commission culturelle bi nga xam ne ñoom la sëriñ Sidi Mbàkke digal ngir ñuy yëngu ci dajale ak gëstu ak tasaare njàngale mi nga xam ne sunu kilifa gu baax googu bàyyi woon na ko fi muy Cheikh Abdoul Ahad ci wàllu ay kàddoom wala ay jëfam yu rafet yoo xam ne ak ay jikkoom yoo xam ne nit ñi mën nañ cee jariñu e, ñoo teew fii tey ngir fas yéene taatan si ay kàddu kàddu yu témoignage ak ay kàddu yi ndénkaane ak ay kàddu yi jëflante yoo xam ne e, am na ci diggante sëriñ bi ci yum xam ci moom ak yoo xam ne dund na ko ci moom ci Cheikh Abdoul Ahad e, ñu ànd nag ak commission bi ci président commission bi di Cheikh Abdoul Ahad Jaxate Eh, sëñ Abdul Ahad Bousso Muxtaar sëriñ Abdul Ahad Ka mu sëñ Modou Kabir sëriñ Abdul Ahad maam Asta mu bàyyi sëriñ Bousso bi sëñ Mbàkke Kanni ak man mii di wax ak yéen di Abdul Ahad Bousso mu sëriñ Thierno ñu ñëw nag ci sëriñ bi sëriñ Sidi Abdou Xaadir ngir fas yéene ko dégg suñ micro mu ñëw ñëw rek dañ koy jox rek mu ñëwal ñu ci eh, lu mu xam rek ci Cheikh Abdul Ahad suñ noppee nag ci mujj gi xam ngeen ne ren ji am na thème bu thème bu am solo muy Maodo ren bi Eh, ci diggante Cheikh Abdoul Ahad ak jàmm muy at tasaamu xajoo eh, li ci Cheikh Abdoul Ahad jëmmal ak lim ci indi soo defee ci mujj gi mu mu indil ñu ko ci kon sëriñ ñu jëbal la kàddu gi bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi bokki taalibe yi nga leen di nuyu di jaaree nuyoo bi ci sama bokk yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey te yore commission culturelle bi nga xam ne mooy yore jëm ci màggal sunu waajur sunu sëriñ Cheikh Abdoulaye Mbacké ñu teg sunu nuyoo boobu ci yéen nga jot suñu ñu ko ci sunu kilifa ba sunu sunu xarit di sunu soppi di sunu mbokk sëriñ Sidi Mbacké xalifa Cheikh Abdoulaye Mbacké ko ñaanal yàlla yeggal ko fi te dolli ko wéram ak kattanam ba li mu bëgg liggéeyal waa juróom ba bëgg ko liggéeyal maam mu def ko ci man ak kattan sanu ànd ko moom di nuyu mbokk mboolem njaboot ko ak Abdou Lahad Mbacké képp nag di leen ndokkeel bu baax ci bés bu tedd bi ñu jëm ñu bésub sunu wajur bésub Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñu leen sant baax yéen commission culturelle bi tamit ci tànk yi ngeen di tànk yi taxaw di ko taxaw ci suñu bés nga xam ne ñun ñëpp seq na ak seen laat loo xam ne war na bu bis bi dikkee ñu ñëw taxaw taxaw yi taxaw waaye wutu gi ñu tuuti nag ñu leen ciy gërëm wax di leen sant li tax nga ñëw fi nag Cheikh Abdoulaye Mbacké nit la koo xam ne ku yamba waxtaane la moom monument la woon ci ci lislaam doon symbole ci yoonu murit nekkoon bâtisseur nag tabax lu wér ci yoon bi koo xam ne saa jamono taxawee rek toujours mu fàttali la ko fàttali ay taxawaayam ci mat gi ci bëgg sëriñ bi loolu mu waxoon ne li bëgg doon mooy taalibu sëriñ Touba bu koy liggéeyal di sàkk ngërëmam mel ne loolu la defoon moom ab jëm ab jëm waayam loolu nag wax yàlla def na ci la man ak lu lépp ba ñëpp seere na taalib sëñ Tuubaa la bu wër ndax mboolem ñu seqaloon sëñ Tuubaa dara ci Cheikh dara dara ci Cheikh Amadou Moustapha ko ku Cheikh ku Cheikh Moustapha la ku jaxasoo woon ak moom la koo daa jëflante donte booba sax gone la ci moom ay xelam doyoon na ko ba fonkoon na ko lool looloo toxoon mu kàbbu nga mu joxoon ko yóbbuwoon ko foofa kër googu kër Cheikh Moussa Sall fa waajuram moo leen defaloon kër ne moo fay jëm ba noppee ma fay ba si ngeen las xamal ne kii mooy kooku seqoon na moom. la meloon ak Cheikh Modou Bachir waaye na ak Cheikh Modou Fadel tam nag ànd moom ci taalibe bi ñoom ñëpp ba làq seen gërëm bi fi nekkee Serigne Touba itam nekk fekk rakam daa taalibe bi googu la jàpp ci ñoom. ku mu gis da dee jàpp moom sa sëriñam loolu nag bëgg gi mu bëggoon sëñ Tuubaa bëgg doon taarif moo waroon loolu ndax boobu mooy kilifa ñëpp kon royteef la ci wàllu taalibe muy ko amoon taxawaay ci diine lislaam itam nag fu lislaam masa amee ab taxawaay bu ay jafe-jafe rek Cheikh Abdoulaye dana ci taxaw dana ci wax ba loola seddu gi waaye nag bu dee ci suñu yoon yi nag moom taxawaay bi ñu ci taxawoon moom néewuma kenn taxawaatu ko waaye yombutu taxaw ndax bi mu toogee xilaafa nag ci la njabootu Sëñ Tuubaa gépp nañ mu xamal leen ne jëf ko bokk bokk ak bu wér du def dara ca ñeen yëguñ ko lu mu am itam sëddu ko ak ñoom la fa nekkoon ak ñoom seenu njabootam mu jàpp leen ne ak njabootam daa leen taxaw damay wax ne toujours dañ koy fàttaliku ci num mu daa taxawoo njaboot gi daana fexe ba njaboot Sëriñ gi nekk ak bokki Sëriñ ak taalibe mu xam seenu njaboot ba at mi dana am ñaari ñaari ñaari cérémonie yu mag yu mu ci def yoo xam ci koré ak gàmmu yoo xam ne da ci dayale mat am soxna ak jigéen ñi mat am góor kër xam day liste kër gu ne dana laaj ña fa nekk te toll ca mu dajale leen ci këram def ci la ca lépp ba mu soog a jox ku ne sa sa soxna may fàttali ko naa ci yoo xam ne dañuy toog ba takkusaan ndax ndax borom séet yi dañuy dajale ci néeg jigéen ñi dajale bu dee ba takkusaan ñu kii yor liste bu dikkee ana si ndàngam ñu ne maa ngi nii ñu soxla ana soxna ndàngam ñu boole leen oto oto bi yóbbu leen seen kër noonu la ko daa defee kaay dikkaat ana suñ nga maa ngi nii mu dem ci ana maa ngi nii mu ne oto sangam yóbbu leen noonu la daa doxalee ci bokk gi loolu muy loo xam ne nag wax dëgg yàlla fii man manqué na te loolu lu amoon solo la loo xam ne day day nit ki xam ne am na kilifa. Hmm. li nga xam ne sax saa bu ma essayé danaa ko fàttaliku mooy événement yi lu mel ne koor ak tabaski koor ak tabaski bu ma saa jot am na oto boo xam ne sëñ Sidi mi nga xam ne mooy ab moom la daa teg ci oto ba mu sedd séddalee suukar si ñun ñi sama kër gii suñu daanaa toog oto corne ñun ma sëñ ci buntu bi ma dikk mu wàccil ma suukar dama sëñ Bello ko jox bu tabaskee la daa def nekk ci kanamu oto bi ñu def ci xar bu dikkee kër ñi nga xam ne sëti sëñ Tuubaa la ca am soxna ñëpp dana leen jox xar ñi nga xam ne sëti sëñ Tuubaa yëpp ci am kër itam dana leen jox suukar koor yooyu yëpp nag yu am solo la yoo xam ne day tax kin yëlëf boo xam ne am na ko ko yëlëf ca bàyyi na ko xel kon yooyu yëpp lu ñu koy fàttali ko muy taxawaay rafet yu mu daa def nekk noonu sam ko am ak ci njaboot gi bu ko yégee dana ñëw la ca war mooy fu ko ca même bu la ceetalee ba noppi nag bu amatee ngénte wala weneen xaw la ca lépp da koy gàddul boppam def ko ci ndax xam ne jàpp ne sëriñ bi moom mooy si moom moom la war ci ñëpp te moom la moom moo war taxaw ñëpp yooyu nag ñu amoon solo la ci yoon mi te wax dëgg yàlla personnellement man manqué na ma lool ci Sëriñ Abdou te lu ma lu ma neex ci moom la kon muy ku daa taxawu bokk yi bu baax a baax njabootu Sëriñ Tuubaa gi itam man ñaari kër yi nga xam ne xam naa muy kër Cheikh Souhaïbou Mbacké ak kër Cheikh Abdou Khadre ñoom laa gën a xam ci kër yi fee laa fii la fii la bokk waaye kër yooyu gis naa ne daaw am bis ñaari fan yoo xam ne ndaw seen daal ñëw fa bu dee yiy ñëw ci moom sax daa mujjoon da koy def liste li nga xam ne xam na ne dana ñëw at mu jot naa leen bu ñu dikkee wàcce leen ma lii nangam yi bu mu wàcc yotu li ma gis ne xarit nag bu dee ñaar mu yemal ko ba mu seen bu dee lenn mu ñu gis ko seen xarit noonu la doxale woon ak moom mu doon diggante ak seen xaar nag ñoo ñoo xam ne danoo doonoon benn doylante soppante sëñ bi laat wax ne sëñ Abdou Xaadir perkal weex tàll la loo gis mu jël rek na ko caataxal man loo ko seereeloon waxaat ne ñoom ñaar ëllë rek gopplan da nga leen di boole liggéey boole boolewu doo liggéey ñaar yooyu rek dana sëkk seere foofu la toll na moom sëñ bu xarit itam fi mu tegoon sëñ Blaat fàttali ko naa sëñ Blaat dafay yónnee moom lu jógee sëñ Blaat rek barkeel la ko jàppe am bis dafay yónnee ay fëgg jaay ay kawas ak saabu yooyu yi nga xam ne ay baar la ndax baar yi bi ñu ko waxee sëñ bi dañ leen ma tànnal ci kawas yi ñu ne ko ah déet lii de fëgg jaay ma sëñ bi la jógee nañ ci tànn nañ waaw ñoo ko dama yaakaar ne donc dongay daara yaa tax mu indi ko fi de man a mun naa ah, ah, waaye waaye nañ ko nañ ci wut ñaar rek jox ma te kawa pëgg ja noonu la tànne baara yi itam ñun ban ko xeloon ne ko baara yi itam yaakaar ne daara tax mu indi ko de mu ne waaye nañ ko ci daggal di wax ci wax ci loo xam ne sax xam loolu man daal ne baari saabu yi de ku ci sangu doo doo rapati mukk ku ci fóotam doo rafalete an wax sax man amoon naa ci denc waaye man la <laughs> sax réer na ma léegi <laughs> ok la bindoo woon ci moom itam bëgg sëñ Abdou Lahad fonk ko maa ngi fàttaliku bi sëñ Abdou Lahad waxee ci ci ci ci waxtaanu ci di Diouf mooy bi muy digle ñu wateel ko tax ko war ko sëñ bi da ko fonk la kooka su fekk ñu tëdd toog ci mbaar mu di ko nuyoo moom sëñ bi ne ko dem nekk sëñ ci sëñ rajo yi mu at sëñ rajo toog ah tubaarkal ma lu wax waaye na ko ah tey dama wax naa wax ji daa mel ëpp sëñ bi dane dane jug dem te kooku fonk la dugg ci biir ak niir bàyyi wax lu ëpp du def lu ëpp tàll ma ñaan la <laughs> ah. du wax lu ëpp ba mu génne ma dafa naan ko yeewal waaye yëwut <laughs> ñoom tam faaw leen ne woon ci bëggante ak soppante ak doylante kon nag ñun ñi ñëpp dañ fi nekkee da moo moo doon suñ lépp seen xol def ñun dara lépp seen laat moo ko waral boppam kon noonu la may doon seen xol waaye noonu la may doon nag bi nga ma dëkkoon noonu la may doon seen du am yoo xam ne ñëw kër ñu seen booba te man mosuma fàttaliku ñun suñu seen ma nga jëm kër seen laat ba mosuma ko fàttaliku dama fa nekk lépp waaye doo am ñetti fan ñeenti yoo xam ne ñëwut toog moom waxtaan dem te noonu la def ko suñu Cheikh Saliou def ko suñu Mourala def ko Badiane May def ko sama moom kon roy royukaay la woon ci wet googu gépp waaye nag fi ma ko fi ma ko gën a newee mooy digganteem ak njabootam ndax lu jafe la tolluwaay bi mu tolloon nga fexe ba sa njaboot dugguñ ca la nga yor te loolu moom réussir na ko doomam yàgg man mi ñoo yemoon ci xilaafa gi kenn xamut lu muy def kenn xamut lu muy doxee bàyyul leen dara maa ngi fàttaliku bi ñuy woote liggéey mujj bi ci barab bi moo xam ne moom lan daan defar xam fekk xam nga arab bi noppi la dem xaalis fi la bàyyoon xaalis bi noonu la ko Seex Saadu ak defare ginnaaw bi seen jox ko xaalis bàyyi suñu la ko dénkoon yàggu fi daa am fi jóge defar may defaraat mujj barab sëñ Tuubaa am ko joxoon kër Ndakaaru soxna may bàjjan may moo na ma diw sàngam damaa jox kër koy jaay def ko ci liggéey bi ma bàyyi ko ci suba sama delluwaat dem na ko ah démb danga maa waxoon ni dañ laa jox kër Ndakaaru mu ne ko ah, moo tax dëgg ma daa daal ginnaaw danga am këru Ndakaaru moom liggéey liggéey moom dana egg bu soobee yàlla bàyyi woon ko fi njaboot gi ëllëg dana ko soxla mu mu yaakaar naa mu gënoon mu ko soxla nay dara laa fi bàyyi sama njaboot fas yéene fi bàyyi dara lu dul ab yar ak ku tëddee leneen loolu fa bàyyi da da daan ci yàqu foofu la ne xam nga tax bàyyiwut bàyyiwut ak dara man ñaari kër laa xam ci moom mu fi bàyyi muy belal ak këram gi xanaa géej ci géej ci ndaamaatu kooku joxoon na ko Sëñ Abdou Khadre kon kooku loolu itam mm, jafe la te toog fi ñaar fukki at ak nangam doon Sëriñ Tuubaa ca bàyyi woo fi dara bu ton dimanche joojee la mu yendoo kon xaalis du fi bàyyi mm. waaye daa ci xaalis li muy doon doon xalifa li ko daan dikkal lépp daana xëy na dama topp soo kër gi dara du fi ne ndax lu mu ba ngoon la ñëw mu sog cee mu génn wàcce loolu dara yooyu yëpp nag lim yanu woon ci yoon wi moo tax mënoon loola kon kooku ku mat a fàttali ko lu baax cay xool aw doxinam lim def nag moom lenn rek da cee doon sëkk Tuubaa gi ni mu ko satale ci li woon koo xam ne xamoon nga dëkk bi ni meloon ci yi ñuy tere màggal masaa jot fii ci penc mi man ma xam buntu kër Sëñ Abdou Khadre bi foofu yëpp ay taabal lan daa teg foofu di ci jaay ay kirees ak ok ak cigarette ci penc mi di def ay géew ci penk jumaa ji teg ko saan tëgg fecc ay sawar daanaka lay doon ak yéen itam yëpp boo demee dara xoos ci ni xam ne boobu moom carte kat yëpp fa lay ne fees dal man kuy carte ma nga ñëw foofu nekk fa am fa ay yëf yooyu nag koy képp saral ko ci dëkk bi doy na sëkk ci bilan boo xam ne bu rafet la waaye nag kër sëñ Tuubaa gi itam bu fi amatoon na nga ni suñu ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa da nga sore jumaa ji lool te loolu itam ab xelam ak xalaatam moo ko tax mu taxaw fi mu tax ku fi nekkal sëñ Tuubaa itam léegi kër sëñ Tuubaa bi fi pënc mi ngay am waaye itam kër sëñ Tuubaa yu bari am na ci réew mi te mooy ndey ji mooma kon nag fu fekk sëñ Tuubaa am ci réew mi rek ma si na ko sante ndax am xelam ak xalaatam ko taxawoon india yi am solo mooy daari ji xam ngeen ne sëñ ci naali sëñ bi la bokkoon fii fii ci bayti école d'arxus bu ñu jàngale tubaab sëñ fi tabaxoon xam nga njëriñ daa baroon ay lakk lool sëñ bi téere yi lakk rek ak dund mu woon suñ mën du tabax loo ko fi ne daa bëgg ñu fu ñuy denc téere yi moo waroon loolee foofee ak fu ñuy denc dund mooy sàq ma mu newoon ñaar yooyu sëñ beeku naaloon ginnaaw bi nag xar faru sax nga sëñ bi daa bañoon tubaab lool wax nañ ne sax li tax mu bàyyi téere moo yi ñu koon mori ci biir daa mbirum tubaab sëñ bi daa bañ tubaab moom tubaab moom amu ci woon masla kon nag loolu naa naaloo sëriñ boobu moo ko matal fii ci dëkk bi tabaxal ko kër goo xam ne si ay centaine de millions la ci defoon ci booba jëndewaat ay téeméeri téeméeri ñoo jënd ay téere waaye nag njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp mu leen di bindloo alxuraan di bind leen xasit di fa dajale loolu tam liggéey la boo xam ne bu Sëriñ Tuubaa gërëm loolu ndax naanu naalu sëriñ bi la université bii nga xam ne moo sax taa taxaw itam moom moo ko sos moo ko taxawal moo miir miir bi fa newoon ba tàmbali fa liggéey liggéey baree bare taxaw fa jàkka ginnaaw bi la ko la la ko bàyyi ñëw songaat jumaa ji def yokk jumaa ji ak ak ak barab bi loo tax mu taxawaloon ko waaye loolu lépp bu mel bu fa bayal ba nekkee barab ba nekkee ak liggéey ba ñu koy mën a eggale grâce à Cheikh Abdou la kon yooyu yëpp tax na mu yi moom mënuñu ko fàtte ko ndax ab taxawaay bu rafet ci yoon wi mu soog a indi nag jokk jumaa jooju ma tudd rek ak yeneen yëpp yëpp muy ko xam ne nag bu jamono masaa toll fii itam fii réew mi toll ci naqare ak xat sëñ la danaa but ay toni toni pepp ci magasin bi kulle yow mi noonu koy seetlu nit ñi boo demee ba masaa mindu nga dem fekk nit ñi ba keroon nawet bi jeex du ko bàyyi bët bu sat lu mu bon bon dana séddale ma cinq ci barab bi ci ci magasin bi nit ñi day fanaan day su ko xam day yóbbu mag ñaari ñaari doomam lay tam fanaan ba suba kuré bu la joxee boo boo xëyee da nga jaay am lu dundi am la lekk bëgg dee nga ñëwaat rang si waat ci ay téeméer nit téeméer ñu ñoo fa loolu tam mm, lu muy lu ñuy fàttali ko sëriñ bi kon ku daa taxawu nit ñi la way tax sëriñ bi sax mi ko koy mi ngi koy mi ngi koy wax foofu ci wayam boobu nen kam min faqirin ka ibin xalla zahatukum wa ya wa ba wa aaba yasurukum kam kam wa kam kami <laughs> bara ñu ñàkk ñu daa ñëw ñëw sa kër waaye bu ñu dellu dañuy sant bu baax a baax kon noonu la meloon nag ñëpp ci ay taxawaayam taxaw ñëpp doon nit nit koo xam ne kam yàlla mayoon na ko ci fasaatu lisan ay waxam kenn du ko laaj te fu ne ma wax ñëpp daan taxaw te ay wax itam du gàtt du gudd loolu mooy lisan li mu bëgg a wax dana ko wax mu leer nañ toccal ko boppam na ma ko waxoon leeral ko boppam du aayee kenn benn ko ante noonu la daa waxee ci wax ji ko lool nag te lu mu bëgg a wax dana ko wax yàlla mayoon ko ci arxaan loolu tam buy wax lu mu soxla ci arxaan dana ko indi laa ji day mel na yëpp day day taxaw ci kanam mu koy dajale mu doon xakim tam maa ngi fàttaliku dama ànd ak sëñ Maodo Abdou Khadir dem mu koy saaya ji bàyyi ne ma kañ ànd ñu dem melal ba ndikkee fekk ko ci biir ñu yëgle ko ma dikkee sëñ bi ne na sëñ Moodu rek ma dikkee ne waa ma man ma gàntu ma topp ca ma dikkee desaan ma dégg ma ma ma ko ma ñëw ma di nuyoo mu ne ma waaw ma ne waaw mu ne ma ne de moom jikko junee nit mën na am ma ma amal ko ba du si ñàkk fula <laughs> ñàkk fula ñàkk fula ko moo ko may lii <laughs> dégg nga sëñ moo daan ko ñaanal ma ko ndax ku ma nangul la ku ma dëggal la mu ne ah mu ne ma nangu sam ci nangu nangu lu am solo la nit loo ko bëgg a bëgg a jox loo ko yéene yéene bu nanguwul da nga koy jox du jot ku nangu rek la jox <laughs> ñaari ñaari ñaari ikkam yooyu moo moo mu neex ma lool ne kon nag góor góorgóor ci nangu nangu daal lu waaye am nangoo ko may ca wax jiite ma diggat ci baat lu ma neexaat mu waxaat mu yaa suñu mur mu ne ko cegtaar bi fekk am lu mu doon wax ci affaire murid yi mu ne ko ah suñu mur daan ma yëgal si murid yi léegi ni bu njëkk dan daa wax dégg jébal laal sama bopp adduna àllaaxira loo ma digal ma def ko loo ma teree ma ba ko léegi nag wax jégal laal sama bopp adduna àllaaxira waaye sax sam xel doyuma rek sam xel doyuma <laughs> waaw waaw mu ne dama ko seet laaw loolu mi ngi door a jot mu ne mu ne ko léegi daal moom nag wax mooy di mel na sama atam waaye nag sama ma xool léegi nag loolu la am léegi loo leen déggal ñu bañ kon la meloon ci xekkimatam ak dogu ci mbir lu muy def lu ci jëmee moom da am bi muy bi muy def tere dëkk bii coono yi ko ci fekk ak coow li fekk waaye mu ne bakkanam bi la ci tey ba am li ba réussir marché bi ba mu koy toj noonu la ci meloon marché bi jaaxal na kenn ko walaal waaye ba mu koy toj noonu la ci doon wala daa yebal suñu xay mu dem Dakar at moom ndax xam na ne suñu mën na ci moom dara <laughs> te bëggul ma intervention ba mu def li muy def ba noppi <laughs> ca lool boobu marché bi xaalis bi bëri yi bewoon lool xëy xëy rek ba mu la ñu joxe dele ñaan du ko def ak du def waaye dele ba jotee daa jekk rek ñu sooy njëkkanti gu ñu jël sa bagage noonu la meroon ci mbir mi yëpp dafay am xasmu ak dogu ci li muy def boo xasee ba xalaat ba jub cëm cëmam lam def dana ko def ndax xam na résultat bi résultat bi mu am ni mu yore woon yoon wi ni ko ni ko ni ko sëñ Abdourahmane waaye rek noonu la wax xadibal xakima bi xikmatin وسياعة وسقاء أيدي ساس العباد سياسة الحبد الخديم الملتحد أعماله الجل النفي ستوى العديد في البلد رمز الخضر لسكره ولا عبقريته أبدا mu ne dafa liggéeyal sëñ Tuubaa ci ci xikma lu doon def lu ne ci xikma da liggéey waaye ak njàmbaar nag ak saxaaw yi de ak tawag loxoom sëñ moom sëñ am laa lu mu lijjante bu ci bu ko doole wut léegi mbéy du ko xaalis wala tarale taraga joo xam ne si moom lu mu bëgg ci yow dana ko def dana ko def waaye bu dee ko yaradi ko nag muy di yar bi noonu la daa doxee nit ñi mu ne sëñ Rahmaan ne principe sëñ Seexul Xadim moom la doon doxee mu ne liggéey jëfam yu baax yi mu doon def nag ci réew mi ak ci ci yoon wi moo tax day day day biil kenn du ko fàtte mukk am xelam itam kenn du ko fàtte kon kooku mooy Cheikh Abdoulaye Mbacke noonu la dunde woon ci ñun njaboot gépp di ko fàttaliku jamono yi ne waaye di di ko ñaanal nag ndax moom leen rek la boon mooy ngërëmu Sëriñ Tuuba sagub si sagub Sëriñ Tuuba rek ku ak sagub yoon wi boppam dara ñuru ko ci woon bu sa yoon daal yoonu murid di jëm kanam yebatu ko Sëriñ Tuubaa nekk ci yoon nekk ci jub ku leen gis ñee leen waaye nag noonu la doon doxe ak yoonu yoon noonu la doon doxe ak tariixa ci yéen yëpp itam nag dawul soxla ñu am dara te ku ci sox ku ci ka itte mu taxaw ca la ca war lépp digganteem ak état noonu la doon moom ñi nga xam ne ne la fi Abdou Diouf Abdou Diouf ñetti weer yooyu moom moo ko bëggoon seen baax sax nu mu wutoon dana kon réew mi daa yaatu te ay kilifa dafay nekk ca mënoo fu ne dem fa waaye moom moo forcé ne ko mënuma bëgg naa ñëw waaye sëñ bi wax ne bu dikkee na wuti barab sëñ Tuubaa moo balaa ko nuyu da koy yebal mu jëm siyaare sëñ Tuubaa dem lay woo sëñ Abdou ma nga xam ne du dem fenn rek ñëpp lay woo ñu teew itte ju waaye am nag danga ko daa wax balaa ñëw mu bind ko bu ko defee ñëwee nag moom wéeti yow da ngaa wax it moo war la nga ñëw nga toog noonu la waxoon nga wax nga wax sa it génn kayin wax noonu laa def mu jeex. day toog day toog day toog nii bu diw sàng man woo diw sàng nga dikk nga wax sa it jooju noonu la daa réglé yoon wi nga xam ne dara mënut a jënd ko nag sa jaaroo ci moom. te te te yoon bu wér a wér ànd ak moom yóbbu ko si seen loxo nañu bokk toog fekkee sëñ bi am na soxla bi sama bëri soxla adduna ñu soog a ñaan dem noonu la daal ànd ak moom ñetti weer yu ne gan gu mu am fonk gu mu fonk gu ne dana ko yabal si seen loxo doy la woon ko la bàyyee ko léppam nag lu jëm ci diine moom loo ko masaa wax mun la demal ci seen du ko nangoo xam sax weeru koor yeeg digg yeeg lépp loo doon doon xaritam nag bu dëgg jotee mu taxaw wax la ko ku fonkoon ab jëf la doon xaritam lool waaye gis nga weer bi bam bam bam bam bam ban ban fi bañee wari te def communiqué rajo bi lank ne du jàll ba Sénégal wari ñu wax ñu noon wariwun suba dañu war suñu laa def communiqué ñu yóbbu ko rajo bi ñu ne du jàll bañ ca la waxoon wax jooju mooy wax ñaari boycotté RTS boycotté ñëpp fu ne dugaan nan fa ngir bëgg <laughs> te booba xarit sama waaye noonu la noonu la daal réglé mbir état moom xam na ñu xelante ñoom ndax état moom loo ko wax ci wét ay régalu ko moom loo ko doon pese ko yoonam néew ci moo la kaw la ragal moo tax moom nag loo boo ko jëflantee moom ca kaw la kaw lay jëflante moom bi bi fu waaye Senghor bi mu koy ubbi fii ci forage bi sam wooteel ko Senghor dikk waxeen noo xam ne mel na da ko da da da da da da fayu ko borom sëñ bi daal di riposte ci saasa te saasa dal ci kawam moo tax bi mu diggee ci marché occasion nag bi mu sabaxee marché bi mu egg moom itam mu xam la mu daal di wax la mu war a waxee sëñ bi daal tontu ko tontu bu neex noonu la bindoo woon maa ngi fàtte marché occasion boobu ngay wax bi suñ bi tojee ci coow yu bari sëñ bi daa mujj bind la bind wax rajo ci rajo bànn waa marché yi boobu xam nga bari ci ay nit ñu dikk mu wax ab bande yónnee ko seen laat di leen tuubal ak di leen jégul seen laat tontu ko ca la ko sant sax na ko nag li nekk ba tax mi ngi mel ne daal ko ku xiif lool añut réer nga toogal ko laax saaxu soow ba sif ko benn raxas nga jël laax ba tuur nañ na ko mer ak jaaxle fekk yow defal nga mus ak ganaar yoo xam ne si yaa ngi koy indi la tur gën ko tuura nag di ngeen sos moom neen daal <laughs> daal la mere mere yoon dafa dañu wax luñ dégg waaye bu ba ni mus ak ganaar yi daan xam ne lii taxoon nga koy def waaw loolu kon xam ne marché bi loolu am na fi léegi wóote na ak lool Maodo Mor bi ci wàllu digganteem ak réew ci wàllu jëmmale jàmm mm-hmm. ak xajoo mm-hmm. te xam na ne loolu ñu ngi ci ay jamono yoo xam ne mm-hmm. kilifa gu mel noonu soxla ko lool sax am na solo lool waaw ku bëggoon jàmm la wala li ma di jox benn yoon rek xam nga fi bi ñuy feeñ fi ma dégg tukki tukki di ko bëkk démb seen jumaa jooju Macky Sall doon defaraat xam nga murid ñoo faral julli xiit ak mu la ñu ma la jàkkee tukki la waaw fala murid daa julli tabaski ak kori hmm. bi ne ba yàgg tukki yi bëgg see tax coow bari la doon doon murid bañ ba ñëwee seen laat wax ko daal ne eh sunna ngeen def ñii neen jumaa lañ bëgg a tabax bàyyi leen ñu tabax jumaa ngeen ngeen wuti fenn noonu la ko àttee ne yéen sunna képp ngeen bëgg tabax képp kaar ngeen fa jëlee neen ñeneen dañuy tabax jumaa ñe ñe farata la kon nag ñëw leen dem leen fexe waaw seen bàyyi foofu sax jox leen nag uh, guy guy singor ñu dandaat tuuti joxaat leen foofu guy singor gannaaw bi rek lañ ko tudd lañ ko tudd masaari bu naan waaye ah, foofu murid yi ñoo fa newoon ñoo ko ñoo ko moomoon waaye bu soxla ko da ngeen faa bëgg a taxaw jumaa waaye su murid bañ man ndoroon coow doon jaw yooyu yëpp ci bëgg jàmm moo ko waral ak yeneen yu bari nag ci ci ci ci ci ci ci ci yoon wi yoo xam ne ci cow dara fa war a yëngu waaye ak ci réew mi itam nag maa ngi wax maa si wax dara rek ku xam na ne tàngoon na metti lool. Abdou Diouf am na ñoo xam sax xelam demoon na ci bàyyi réew mi sëñ Abdoulaye moo ko demee toog jàmm rek ma fi mujj ndax booba tàng na lool ay weeri weer yoo xam ne mënut a génn Dakar mënut a dem fenn Tuubaa sax bu fi daa ñëw day jël hélicoptère waaw boobu mënut a jaar Thiès Dakar ñu def couvre-feu lu yàgg six ba six heures kenn du génn booba booba booba bu amutoon sëñ Abdoulaye réew ma ca boobu fii réew mi toll nag fa la tolloon ci tiitaange ak jàqare ay boobu moom taxaay bu mu war a taxaw da biir ci moom ci ki muy waxal wax ko li war def tam nag 86 noonu noonu la defoon gis ngeen fi dëkk bi itam élection yu métti yee fi amoon diggante Moustapha ak Samba Yara ba kilifa yi doon ñiy far fii ñiy far fii mu indi sol lu bari ba kilifa bari doon ci jote ci la jëlee yoon engagement ne tere dëkk bi politique ne bu fi kenn politique léegi ndax ñu naan mi ngi bëgg a taqale sëriñ si te lii du dara kuy politique rek demal Mbàkke loolu lépp ci taxawal jàmm la ci dëkk bi waaye nag mboolem yëngu yi am ci yeneen yooyu itam rek da ci laa taxaw yore wér nga xam ne du neex a wax ci ci ci tara bi sax waaye taxawaayam daal moom ñëpp a ko ràññewoon. diggante moom état itam noonu la la doxee ñoom rek moom danaa fex danaa wax ne bu itee boppam moom ku mu ko jox gàntul nekk fexe ba. bañoon ne ko moo tax bu Abdou Diouf Moussa di tukki wala campagne bu yëpp sëñ Abdoulaye day jël en charge li muy dundeek lépp moo ko yenu ba keroog muy génn région bi ndax man ko ne soxlawul dara maanaam buy duggee ci région ba keroog muy génn lu ñuy togg lu jëfandikoo lépp saa si sëñ Abdoulaye koy moo koy financé ngir bëgg koo xamal ne doyuloo soxlawul dara taxoon na itam nag Abdou Diouf sañ def dara ca. yëglu ko ndax bàyyi woon ko xel ndax xam na ne saa bu defee lu mu ko war a def rek mu taxaw moom ab noonu la noonu la doon defee noonu la ku ñëw moom daal boo nekkee ci li mu bëgg di taxaw taalib yi di taxaw réew mi ci xalaat bi nga ko bëggee ngeen juboo boo defal leneen boo defee leneen nag mu taxaw wax leen dëgg kon nag loolu lu am solo xam nga am réew moom li ñu waxoon Seydina Omar rek ba foofu melee nii xaw a yëngu te ko ah ba mu laaj woote laajte ñu ne ko luy pexe ci lii ñu ne ko ab yar ngay wut moo moo nit ñi li ma leen gis affaire leen de mm-hmm. as sidqu wal xadlu mooy al adlu wa sidqu maanu te waaw mooy réglé dëkk bu dëkk bu lëj kon nag il faut que suñu kilifa yi taxaw ci xadlu bu amee moom justice justice bu leer te kii def def dëgg rek jàmm rek ma nit ñi nit ñi dana la nangul leneen nag li moom lay ñuy gàntu. xanaa ñu nga mujjee rek maanaam yan jikko ngay dénk sénégalais bi ñu roy ko ci Cheikh Blate wala yan dénkaane ngay ngay tëjee hmm. waaw naa la sëñ dem ko jikko yi ko war a royee dafa bari lool waaye man bi ci gën a solo mooy nangu am kilifa. ñoom laa defa nangoon kilifa lool mboolem bi fi ay magam nekkee moom kenn du ko dégg dara mu mujj bi suñ mu fal sax ci yebal ko muy tukki day def bu tukkee ba ngoon lam dajale di ay suba jox ko ko xëyaat fa toppat guddi gi dem noonu la war a doon fa rek suñ fal waaye Cheikh Moussa itam la ma moom ak kon nan fexe ba am nangoo am kilifa bu baax a baax waaye dam nangoo yiir sa njaboot tam nag kon laat ak ndisam kenn xoolaal hmm. ak ndisam boo dikkee la la ko xoolaal da nga xam ne la am ko am kilifa la kilifa moom day fexe ba am kilifa waaye am kilifa gu la yiir tam baax na ci ñun kon nan li ndaw yi naan fexe ba nangu ñu yilif leen dégg nga cay topp ndigal nag ci bàyyi ay tere ca bañ a yàkkamti bañ yàkkamti dara ndax yàkkamti mu yàqoon rek te moytu kàddu yu bari yi sam nag hmm, xam nga Sénégal fii ne defee dafay yomb ku ne man gàttal sam ni wax kàddu yooyu nag moo tax dañ ko war da moytu baax baax ndax li muy yàq moo ëpp li defar te da nga ciy lore te doo doo ci jariñ kenn dara kon ndaw ñi lépp solo ñu moom mooy ñu bo nangoo li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa tëral yoon wi daal mooy jaamu yàlla yoo xam ne da nga koy dëppaleeg sunna waaye di moyu ak tooñ tooñ sa moroom jaam wala tooñ sa boroom te nangoo liggéey sëñ Tuubaa da ñett yooyu laa digle ku ko ku ko ko jox sa bopp daan la maa ngi lay dénk nga farlu ci jaamu yàlla ndax sunu borom ba muy bind bind wuñ dara lu dul jaamu yàlla nga farlu ci liggéey liggéey mooy tax nga man a moom sa bopp ba mën a jaamu yàlla ko ak tooñ tooñ sa moroom jaam wala tooñ sa moroom sa borom ndax kuy tooñ kat doo mucc waaye kuy fay itam doo ta yi yii la la laa digle yooyu nag ndaw ñëpp waroon ko bàyyi xel di moytu tooñ tooñ ci wax ak tooñ ci jëf te nangoo liggéey ndax léegi su nit ñi doo xaw a ñàkk jom lool bëgg nañ teraanga te nangootuñu liggéey yaakaar nañ ci pexe ki tappale rek la ñuy amee la kilifa goo xam ne nee na nit nit li muy li muy dal daj ci def ay tappale boo ko defoon ci liggéey am am ko <laughs> da ngay def ba amee ay tappale boo ko boo ko defoon ci liggéey am ko waaye léegi loolu yëpp na ko ndaw ñi moy bu baax ñu ngi ñaanal bu baax nag ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te dolli ak wéram ma li muy liggéeyal sëriñ bi ak li muy bëgg a liggéeyal sëriñ yëpp mu yàggal ko can ba ànd ko moom di ñaanal baax sëriñ yàlla yàggal ko fi ci kanamu njaboot gi ba li mu bëgg a liggéeyal ba lépp mu yàggale ko ñu leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen jégalu nag ci kàddu yi xam naa waxkat moom dama koy doon moo tax sama doon fayal sama yéen rek ndax sëñ Blad Mbacke moom daa def ci ñun loo xam ne wax sëñ ñu ñoo wax ci moom ngeen wax ñu bañ caa wax ndax mën naa ne def na ci loolu lu bare bare def na ci moom lim ma daa def naa li gën a rëy ci man mooy toog ba ak ñu ne ñoo wuyu sëñ laat am naa nekk fii doon ba wax gone laa ñu bari ki kiw si ñu bari bari ma soxla ko toog nit dikk na la ñoo wuyu sëñ bi mm. xam nga dafa neex ci taalibe mm. te loolu amoon amoon naa ko ci moom am naa ci moom itam lu lu lu rëy dama gëree di woon wérdu ma sax dama dama doon jeexal boo sëñ bi ma bindal ko ab nooru daal yi it ko ko ne wax ko nag mun daal ma dal bëgg ma ñaan mu ne dama toog ma toog bu kii ba kii mu fàttu ma dellu ci ëllëg sama dis ma def ko ñett yoon tawaloo ma di ki nuyu ko rek mu waaye Sidi Mbacke fàttoo woo demal toog <laughs> si si bokk fa toog doon toog ah alhamdulilah bokk kon kon baax loolu rek laa doon bañ la maa ngi sant ba alhamdulilah maa ngi si te sant nañ bu baax a baax yaakaar naa eh, ñu fi toog ñëpp xam nañ ne kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko indi na yu bare bëri yuñ ci mën a jàngate nga xam ne daanaka mën nañ cee tibbi lu bëree bëree bëree bëri ci yi nga wax yëpp te seere ko ci Cheikh Abdoul Ahad muy ci wàllu dogu geeg pas-pas bi bëgg gis Sëñ Tuubaa digganteem ak Cheikh Abdoul Xaadir euh, maanaa ak nim def dëkk bi nim nim ko taarale surtout li nga wax ne doy na ko sëkk bilan mooy setal gi nga xam ne setal na ko dëkk bi euh, loolu loolu di ay kàddu yi surtout yi nga mujjee tamit ci sa diggante ak ak njaboot gi ni mën a taxaw njaboot ni mën a jël engagement waaye euh, wàllu xajoo ak saxal jàmm ni koy jëmmale ci diggante kilifa yi diine yi nga xam ne lislaam rek la jiitaloon donte murid yi ñooy ay njabootam waaye teewul su waree àtte ci lislaam lay sukkandiku comme ni mu ko ni mu ko defe noonu loolu ay mbir yoo xam ne daal yaakaar naa ne. daa jékki-jékki rek di dem fii ko Tivaouane. du tàggoo dem Ndiassane. bett leen bu demee karaan bi bari la ñu baale. macha allah waaw. nga xam ne moom moom daal Sénégal la jàppe woon ne ak Sénégalam la maanaam ci loxoom la nekkoon dana la doon doxee. kon nag kàddu yi am na solo lool bég nañ ci lool. sant nañ ci bu baax it ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax ndax sawar nañ lool ci bokk ak yow ab jotaay ngir sa bëgg xam-xam ak sa jikko yu rafet yi nga xam ne sun borom jagleel na la ko ci ak mbaax ak ci ubbiku loolu it ñu ngi la ciy sant bu baax te di la ñaanal suñu borom may la gudd fan ak wér kon mbokk yi ñuy seetaan wala ñu ñuy déglu ñu ngi woon fii ci kër sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir muy commission culturelle bi nga xam ne sëriñ Sidi Mbacke Abdoul Ahad moo ko tànn ngir dénk leen ñuy waajal màggal gi ci fàttaliku Cheikh Abdoul Ahad ci xam-xam ak ay jikko yu mën a roye ci moom ñu ngi àndoon ak sëriñ Abdoul Ahad Jaxate mi président commission bi sëriñ Abdoul Ahad mu sëriñ Mokhtar Fatikan ni sëñ Abdoul Ahad mu sëriñ Modou Kabir Ka sëñ Abdoul Ahad mu bàyyi sëriñ mu sëñ Mbàkke Kanni ak Abdoul Ahad bu so Cerno incha allah ñu ngi leen di jox uh, dig daje incha allah ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sowaal ci magro sëñ Abdoul Ahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ay sëñ Tuubaa ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañu ko